Infos 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaax yi nag dañ koy dooxeek nag li ci jot fes mu président Ousmane Sonko ak déclaration politique générale bi nga xam war na kaa def yi nga xam moo di ca assemblée nationale boobu ba léegi nag député yi ñoo ngi toog rek di xaar moom mi nga xam président moom di premier ministre yi di Ousmane Sonko defagul li nga xam moo di déclaration nag député yi nag boobu léegi nag ñoo ngi toog. di ko xaar bëgg rek mu def nag li nga xam se ne moo di déclaration politique général bi nga xamante ne nag war na ko amal fa la nga xam moo di ca assemblée nationale mais nag ñi nga xam se ne nag ñoom ñoo di Sénégal yi ñoom ñoo ba léegi nag ñoo ngi toog rek di diglu di xaar ba xam ana rek fan lay mujjee li nga xamante ne si ne nag moom moo di déclaration boobu nga xam si nag war naa am. nekk nag loo xam si ne Sénégal yëpp rek ñoo ngi toog di ko xaar ci loolu nag mu dund gi nga xam moom la ñu xam lay wàññi nag ci li nga xam moom moo di dund gi instant bii nii rek li nga xam si nag moom moo di état bi nag jël na ci ay matukaay ba instant bii nii gis nañ ne li nga xamante ne si nag moom moo di euh, ñi nga xamante ne si nag.